faram fàcce man bi ñu egsee suñu kër wékk bunte bi fekke sax sama beneen rak mu ngi foofu ku jigéen dafa ëmboon mhm. bu ñu dóoree bunt bi dugg ak doole ñu dóoraat beneen bunt mhm. ça fait deuxième bunt bi mhm. ñoom si la ñu yuuxu bu ñu yuuxee rek fekke keneen ki dugg na suñu néeg mu fekke maa ngi tëdd foofu man ak Modou la mi mu jàppañu mu ne ñu ñu tëddal si suuf ma ne ko déedéet man du ma tëddal si suuf mu ne ma tëddal si suuf Modou Lamine tëddal si suuf ma ne ko man du ma si suuf mhm. la laay tëddal si suuf mhm. man ma toog ñu yóbbu ñu boo fële sorti dëkk bi ñu mhm. toogal ñu foofu si suuf ñu ñëpp ñu raan ñu foofu nii ñu woo oto yi si la ñu woo oto yi oto yi ñëw yi bu ñu ñëwee ñu tourné ñu raan ñu ne yëg leen si oto yi fekke ñu ngi manote ñëpp si ginnaaw ñu yëgal ñu sioto yi ñu commencé pour yéeg si kat-kat yi ñu ne ñu déedéet nañu leen dugal si sar mm. ñun moo tax ñëpp si sar la combat yi lañ ñu dugal. bu ñu demee ba gendarmerie bu ñu ñu wàccee ñu foofu mm-hmm. gendarmerie nee ñu raañ ñu foofu ma ne gendarme beneen gendarme man dama saf saw dama bëgg saw mu ngi manote loxo yi si ginnaaw mm-hmm. mu ne beneen gendarme bi yóbbul kii mu dem saw mu yóbbul ma mu dugal ma si douce bi. ma ne ko yow ma saw si sama tube wala lan mu ne ma ah yaa xam ma ne ko man ni ma xam ni may sawe yaa ngi takka loxo si ginnaaw ma ne ko kaay tijji loxo yi wala nga ñëw génnee sama tube ma saw mu ne ma booy man du ma liggéey loore ma ne ko chef yow yaa takka sama loxo si ginnaaw man boo takkaloon sama loxo yi si ginnaaw dinaa si takk tekki sama tube ma saw mu ne ma léegi loo bëgg ma ne ko kaay teggil tube bi wala nga tekki ma noti si la tekki tube yi ma saw ba pare ma ne ko tëjal tubéy bi taka ko mu ne ma booy man doo ma liggéey loo ma ne ko chef man liggéey loo ma la yéen yaa leen taka sama loxo yi si ginnaaw dee benn la boo leen di rey ngeen rey waaw ñu toog ñu ñu foofu bo mu yàgga ñu dem dugal ñu si case ronde yu fa nekk noonu biir Ziguinchor waaw foofu camp gendarmerie sax am na ay case ronde yu ñu taba foofu ñu dugal ñu foofu tegu ñu foofu ñu séparé ñu ñu toogu fa boo ay 16 heures comme ça. Mhm. ñu commencé di entendre nit ñi. man ñu may entendre vingt deux heures et demi parce que dama ñëw toog ma xool ordinateur bi rek ma gis euh, vingt deux heures et demi. Mhm. si lañ ma entendre. Mhm. ñu laaj ma ñu ne ma yow affaire bi noo ko yëgee. ma ne leen ban affaire ñu ne ma problème bi tiyeeri bi. ma ne ko man du question dama ko yëg mais man. dama gis convoi bu ñëw jël néew yi. ñu ne ma noo ko gisee ma ne leen man jour boobu dëkk buñ ko bu ñu génnee néew yi mooy Bro Fayban man foofu laa nekkoon di liggéey. ñu ne ma bonne nga dem liggéey mane ne ko maa ngi moo jógee suñu dëkk Toubacouta sept heures et demi. ma dem parce que vélo laa yor. ma egg fa huit bi ma eggee huit heures foofu laa liggéey ba dix huit heures. beneen chef bi mu ne ma li ngay wax ni yëpp da ngay fen ma ko chef. fii yaw yaay chef bi lu la nee nga wax lu la nee nga def mu jóg pour ñëw dóor ma moromam jàppa ko mu ne ko bul ko dóor bàyyil mu wax ma ne ko seef kii même mu dóor fii ñu ne ma waxal dëgg ma ne leen hee man amul beneen dëgg bu ma leen wax gis ngeen lii li ma leen di wax nii mhm. bu weesuwee foofu bu ma lu ma fa tegaat rek ngeen xam ni ki damay fen lii laa leen di wax jeex na mhm. ñu ne ma comme yow nanguwuloo wa dëgg kaay tey di gis si la ñu jël manotte yi delloo ko sama loxo yi bësu ko ma ne ko chef manotte ni nga manottee nii mhm. manotte yi dañu seere mu ne ma yaa xam mu yëngal nii manotte yi manotte yëngal mu gën a bësaat mhm. ma ne ko garaawul ma mhm. noppi loxo yi si ginnaaw de mu delloo ma ci biir kaas bi sama loxo yi dañu néew nii la ñu def manotte yi noonu la di interroger ñi yow bi ñu la interrogé ba ba dugal la si si si kii bi kenn woowaatu la mënatu moom nga fanaanoo ñun depuis ñu dugg depuis ñu jàppa ñu depuis ñu jàppee fii mhm. ñun manot yi amul génne manot mhm. guddi bëccëg ñun dañuy fanaanoo ak manot yi jógandoor ak manot yi premier jour bi sax mhm. añu ñu woon depuis si suba lekku ñu dara bo ay seize heures bi ñu jëlee quatre heures du ba seize heures ba seize la jox leen lekk nii naan nii naan lekku ñu naanuñu boo ko waaye chef may ñu fii ndoo il faut nga négocier bu baax ñu may leen doo ngeen naan. léegi si durant sept jours yëpp journée bi yëpp dañ leen di mënoote. durant sept jours yëpp guddi mënootu moom mosul génn ñun benn guttu ndox lañ leen di jox pour ngeen séddoo ko. boobu rek benn Evian. bi ngeen ñëwee ba dugg yegg si si biir village bi ba dugg sa biir kër euh, ban ban ban sensation nga am ak naka ngeen di dundee. dund moom xam nga lu ñu la jiin ku la xamul. Mhm. foofu moo lay sonal mais bu dee fii. population bi ñoom xam nañu ni ki ñii bu dee man Moussa xam nañu ni ki ñii ñu ñu jàpp yóbbu leen kaso dañu leen tooñ. ñii defuñu ko. amoo leen si benn kersa daal ndax xam ngeen ne. village bi am nañ leen dara suñu kersa mooy lenn rek moo ñu sonal. Mhm. parce que fekk nga sa jaboot tas. Mhm. bu dee man. Mhm. bi ma egg see suñu kër. أنا تواكيالي أنا تواك مكيولي من معروف سنو كير ma dugg ma dem ma dem tëdd man kese kër bu nga xamante ne ay nit yam pagañ ñoo fay nekk duñu yeeji ya sa tëdd ñeneen yi dañuy tasaaru dem tëdd si yeneen kër yi man ma egg si tey suñu kër man kese maa fay tëdd sama papa gën boobu la dem boo mu gaañu nii mm-hmm. sama finalement fu ñu ko yóbbu faji Ziguinchor mm-hmm. foofu laa ko mujjee dem top ma dem seeti ko foofu mm-hmm. dama toog fii benn fan bi ma agsiyee si guddi le lendemain nit yi ñu ngi ñëw di may nuyu ma ah, du ma mën a tey xaaral ma bay ba suba ma nuyante tey ak nit suba ma dem topp sama papa. Mhm. alors yow ban seede nga mën a def ci ki nga xamante ne bokk na ci yéen joto a ci kaso bi ndax mën nga ñu wax lan moo ko rey wala ci yan condition la ñàkkee bakkanam ci kaso bi. suñu paa paa bi ku gaañu mhm. paa bi dafa bokk suñu ñu yóbbu dakaar paa bi bi dañ ko faj. dañ ko opeere xawma benn fan lañ ko opéré buñ ko indee buñ ko yóbbuwee hôpital ñu opéré ko am fa benn fan ñu delloosi ko hôpital. Eh, ci biir kaso bi paa bi fanaan fa jour buñ ko indee mu fanaan boo fajar boobu lañuy génne génnee yobu yi yóbbu leen. dafa feebaroon wala lan ngeen jàpp ni moom ah bi muy fi muy gaañoo bokkul bokk leen woon. déedéet fi ngeen nekkoon paa bi Dakar la. merci beaucoup du côté de la régie donc boobu moo doon témoignage bi njëkk tukkee ci ki nga xam ne moom mooy wuyoo ci turu Moussa Diémé moom.